Salam fidèle internaute de Saint-Louis TV, nous voilà encore une fois réunis comme à l'accoutumée pour 10 minutes non-stop de mode. Aujourd'hui, je suis carrément sortie de mon zone de confort, de ma Daru pour aller à la rencontre de mon invité. Sans plus tarder, je vais basculer vers elle. Nico Koura, bienvenue dans Fashion Victime. Merci Chana. Je te laisse te présenter à nos internautes. Bonsoir, je m'appelle Koura, Koura Diallo je suis étudiante et maquilleuse en même temps. Je vous dis salut, bonjour et vous voyez que je suis particulièrement plus belle parce que couramment, je fi mon moment franchement je fais partie de ceux qui ont toujours eu l'appréhension d'aller se maquiller soit tu euh, raison soit tu te dis que boo demee maquiller aussi salon yi affaire bi euh, extravagance et tout ça ça ne sera pas à ton goût mais franchement j'ai été épatée et c'est ma première fois mais je vous assure que ça ne sera pas ma dernière fois parce que j'y ai carrément pris goût donc euh, j'en profite pour te demander comment l'idée de devenir maquilleuse t'est venue Bon Chana l'idée de devenir maquilleuse euh, je vais dire que dafa ñeu spontanément ni rek ñeu ci si man ci saasi rek parce que un jour dama doon fooye ay brow foo xam nga yaa euh, jigéen ñi rek mhm. fooye ay brow di def di dindi un jour may def di jangi comme que salon la nek nak mhm. sama kër dafa am salon genre tout le temps damay côtoyer monde maquillage et tout xam nga nous dem un jour mais élève ci salon ma maman que je que je salue au passage maquiller comme ni ngay bon j'ai essayé au début j'avais des boîtes yo xam maquillage pas de très bonne qualité mais bon on va avec Nous ñu dem ma tout le monde a apprécié de là sourire bi ma gis ci visage am indi ba tax contentement bu am. Mhm. moma indi ba tax j'ai percé dans le truc et voilà quoi ça c'est venu naturellement. ok c'est super alors comme dégg ngeen bu baax ko wax néna le truc lui est venu naturellement euh, suivre ben formation ni rien dafa don essayer comme tout autre fille rek bi nga xam day toog boîte à maquillage am di di di essayer alors comment ta famille ont-ils accueilli l'idée parce que je vous rappelle qu'elle est qu'elle n'est pas maquilleuse seulement elle est aussi étudiante en deuxième année à l'UGB et pas dans n'importe quelle filière. Elle suit quoi d'ailleurs euh, Technologie agroalimentaire. Alors, science. vous voyez chaque jour les deux vont de pair parce que les deux de def mhm. alors essayez d'allier les deux et mhm. faites de vos études vraiment mhm. euh, la priorité parce que c'est la la la base euh, alors coureur. Euh, est-ce que ça impacte euh, sa vie sociale. oui je vais dire oui. Euh, premièrement, je, rencontre beaucoup de personnes. Chaque fois, je rencontre de nouvelles têtes. On me connaît de plus en plus. Et aussi, pour ma vie personnelle, sociale, j'ai plus du tout le temps d'aller voir mes copines, sortir le samedi ou bien faire des, des, des, prendre des pots, je peux plus faire ça parce que tout le temps je suis surtout les samedis. J'ai plus de vie les samedis. Les samedis, bon, du ma du dara lu ma digle mu yàq. Ah, je vois mais normal mais moom dit moo jiitu si lépp surtout loo xam mi ngi lay apporter quelque chose Mom. je pense que ça prime surtout ay affaire de Elle ay affaire de aller euh, prendre des trucs avec des amis Lolo moom du du du loo xam te dina dépasser tu auras toujours le temps pour le faire. Mm-hmm. sinon comment tu fais pour allier les deux les études et et le métier de maquilleuse. Euh, maquillage bi moom ay samedi lay ëpp lu muy am. Mm-hmm. te samedi lu si ëpp euh, école ñuy jàng université nous ñu jàng lu si ëpp mais des fois nag ma am euh, cours les samedis mais tout le temps c'est les trucs c'est les études qui dominent qui priment parce que sama vocation maquillage passion la mais étude si boppam man si laa gis sama avenir. Mm-hmm. si la sa avenir nekk si la si la si la wékk sama avenir. d'accord parce que xam-xam la xam-xam la damay jàng tu as tout à fait raison Non, la sinon euh, vous savez tous que dans tout métier que ce soit dans toute chose que ce soit les études ou bien un métier ou quoi que ce soit euh, il y a des tout n'est pas toujours rose des fois on raconte on rencontre des problèmes et tout ça. Koura si ce métier bi quelles sont les difficultés rencontrées. Chana, difficulté que ma am maquillage produit. pour mën a am ci produit yi foog ma jël GP yu fay ka xaalis muy jëli ay maquillage et tout yaa ngi de même bu dul loolu sax foo pour nga dem ba Dakar ndar fii nii nii lieu bi ma nekk amuñu fu fu ma mënee fu ma mënee amee matière première bi may liggéey du ma ko mën damay sonn loolu difficulté la beneen chose bi mooy euh, ici à saint lu si ëpp make bi amul tegu ko fi tànk bu baax ñu mm-hmm, mm-hmm. ngi fi commencé ñëw nag ba tuuti tuuti mais tegu ko fi tànk koo wax du ko xam ñoom mm-hmm. pour ñoom make-up bi mooy eyebrows bi ngay def marché ñu la koy tatouage ñoom loolu lañ tuddee make-up xamuñu bu baax que make-up c'est maquillage la boo xamante ne en anglais lañ ko tuddee make up. Mhm. mooy maquillage en mhm. anglais. Mhm. yaa ngi dégg maquillage bi nag daf lay changer daf lay kii dafa daf s'est amélioré daal c' est quelque chose bien réfléchi. boo xam te ne dañ ko teg si science lépp loo xam te ne ko def si make up dañ ko teg si science dañ ko teg ci. tracé bi lépp dafa am yoon. yaa ngi dégg mënoo jël n' importe quel eyebrows nga defal ko n' importe quel nit. que loolu liggéey la xalaat la day jël sa temps jël sa énergie donc bu loo mën a def boo ci fayee ko nit dara sax waaw danaa la fa cher i man maquillage mille francs laa xam et tout <laughs> alors que c'est pas ça. Le tout s'est amélioré. Voilà, 21e siècle on va avec et tout c'est ça. Alors, euh, la difficulté on va rencontrer. j'avoue que les poumons dañ un de science parce que mon rek un exemple là, ça dama changé complètement damaa xoolaat sama bob, ci miroir bi me waouh, est-ce que tu man malade ?» je suis toute pédillante et toute belle machin. dama cap sama bob. les flatteurs diront que tu es toujours belle mais tu es d'assez rare raw mais sinon euh, le fait que aussi ngay dem di di di wuti di ay maquillage di def GP pour pour euh, exporter ay maquillage et tout ça lolou est-ce que dina fay prix est-ce que après maquillage bi ngay maquiller nit ñi est-ce que dina fay lol non nga xam ne ko si dépensé. waaw comme ni ma la ko waxee woon sànq rek nit ki li li lieu bi ma nekk lieu bi ma comme muy Saint-Louis nii gisaguma fi daal ku ko xam deug ku ko xam deug liggéey bob ku ko xam.

mais daf lay indil kii daal maanaam da lay indil difficulté parce que nit ñi duñ ko xam. Mhm. nga jëlee say produits yu cher parce que déjà boo jëlee produit bu cher bi par exemple bon marché yi nga defal ko nit résultat bi nga ci am ak bi nga utiliser lu baax ça fait deux. ok yaa ngi comprendre te man nag sama xol moom ma mayul ma jël lu bon def ko ci kanama nit. te boo ma fayul quelque chose à imaginer. je fais mais fenty fond de teint fenty mi ngi jaar ay vingt cinq mhm. yaa ngi dégg wala lu ko gën a tuuti bu gënee wàcc ay vingt deux mille te loolu vraiment mënoo mënoo ci génn daw ci mën a génn fokk nit ñi xam li ngay li ngay li ngay kii li ngay liggéey pour mën la jàppale comprendre le la donc euh, vous avez bien entendu de mu n'est le problème moi mooy discours fay prix koo xam te dina dina dina jox gëdd franchement mon limi ligue et c'est pas donné à tout le monde parce que ñun ñi nga xamante ni ñoo ngi toog suñu kër rek am suñu benn boîte à maquillage bu ndaw ici à Saint-Louis pour trouver du maquillage c'est tout un problème mhm. alors imagine moom mi nga mais mi ngi si soxla ay quantité Voilà, des fois, nit ñu et tout ça mhm. alors euh, mais à part ça nit nekk coureur boo dee ci dara aussi am nga prétention mhm. amna ben benn but wala ben objectif bo xam te ne bëgg nga ko atteindre mhm. c'est vrai que dañu naan ñun mom euh buñu xamé fi nga jëm do egg mais nga may ñu ci tuuti rek ñu mëna xam yow sa maquillage bi ne ban projet nga ci am ban projet la ci am ah ñaan naa yàlla que

jox ay kanamu clientam ni ma liggéeyal ci ñoom ma xool li nga man moo ma fital moo ma dooleel moo ma dalal ndax salon bii ma nekk nii tey mo malgré que moom amul amul xiis kii fii la nekk kii fii la nekk ku nekk ak lu poste bu mu la jox ñu liggéey ci jàmm liggéey ci salaam ñaan na yàlla salon bi ma nekk développé wu développé wu développé wu ba ñun ñëpp macha allah di ko raa comme raa bi commencé na <laughs> mu gën a yokk amin amin voilà l'union fait la force de lu benn lu benn nit mën moom ñaar ñoo ko ko dàq et je pense que bu ko dalalul woon aussi si salon et tout ça kon du yegg fii mu jëm mm-hmm. te yow aussi boo ñëwee fii nit di fi maquillé wu mën na fi gis leneen ba ñëw defaat fi leneen lu dul make kase mm-hmm. kon euh, nii la rek moom jàppal ma jàpp la rek pour ñu mm-hmm. mën yegg fu sore te sa li nga xam te ne mi ngi yaa ngi koy mëbët mu nekk sa xel yaa nañ dem ci make-up yegg fu sore sore sore sinon nous voilà arrivés au terme de cette émission vraiment ce fut un réel plaisir que ma partagé ko avec ma petite dame là toute gentille nga xam damaa ñëw mu dalal ma jox ma ma añ ba suur naan ba mandi mu maquillé ma yàq ma ba ma yàqu man moom sama xaritu bopp la franchement je l'admire c'est une personne boo xamante ni moom nit ku baax la vraiment

nday daba <laughs> nday daba sama cousine bu baax bi su du woon yow la billaay duma yegg si fii lépp lu nekk fii rek yow yaa tax macha allah maa ngi lay ñaanal lépp loo bëgg sa xol yàlla na la ko yaa maa ngi gërëm Chana <laughs> non. Bye bye à la prochaine. Merci, mm, à toi. De question de Youfou ça, mais c'est juste que peux-tu me lire mon bonheur et alors on se dit au revoir, à très bientôt sur Saint-Louis TV. D'ici là, restez belle et restez coquette.